barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan
alors qu'est-ce luy luy préoccupé nit surtout famille Ndiaye mu ñàkk reer si du ko fàttali c'est extraordinaire alors nag moom la mbaatam mbóot foog ñu boole ko ci mbóot nag ci siège yu mbóot ci la barke lu dugub ci la ci la karaama dugub démb ci la mojisa dugub ci la kashfu dugub nga xam ne sori wala karaama ci la ci la ci la tëmbiyat bi maanaam barkeel waxuma barkeelu barkeelu ci dugub mais barkeel def barke ci dara yooyu yëpp duwul ay duwul ay jaxru ay sirru la waaw parce que par exemple yonent ay sam sam bi mu dugalee loxoom ci ndox soo xam ne muur loxoom mu mel ni ko gën ay ubbi kenn déggul lu wax dañ di passé bismillah yooyu yëpp koy wax kon nag képp ku nekk ci suñu yoon maanaam gëm nga ne laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah mooy islaam ñu def ay tuut wóor la ne ci wér lañ ko teg ay yonent ki téere ci ay xawaayid wér boo demee ba nga xam nag da nga bëgg a perfection muxsin na perfection nag amul pime daa fekk ka annaka yonent bi an taabudallaha ka annaka tara xam nga si ku nekk ci position nga jaamu yàlla ba nañu ni ba muy samandaay ne da nga koy gis mu di la observé ngay jaamu loolu mooy xudur loolu mooy shuhur fa in lam takun tara moom la tax a tayal fa innahu yaraaka kémpa koo xam ne boo ko gisoon tey doo bàyyi moo leen mi ngi lay gis xam nga in lam takun taraaw dafa mel ni dafa fa innahu yaraaka dafa delloo si waay parce que ñàkk a gis am na lu xew soo ko fàttale waaye tumuraanke woon moom mi ngi lay gis xam nga yee nga ko ba tax sax ci gaañi ñi bind te nekk ay ay ay ay ay taalibe suñu anke yu yu yu avancé ba ci kanam dinañuy sax dinañuy sax bafoué grammaire arabe ci xadis boobu bu leen def mais ñi ñuy waxal nag ñoom ñoo koy xam fay lam takun taraaw fi noo yaraaka mu ne fay lam takun taraaw soo si si ci cesse d'être rek nga doon koy gis te ku ku nekk lu mu gisee xam nga ni kon bu doon fekkoon ne lu ñuy fànga def na fa in lam takun tarahu ndax su boobaa dañ koy dafay dafay nekk jawaab bi charte yu ñu xasaf ay fa in lam takun bon kon nag dama bëgg ñu am nekk à l'aise ci waxtaanu barke ak karama ak siru am na mais demul marché demul marché lu may nag sur lu marché am na loolu moo fi sur lu marché am na ndaxte wax naa ne yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mës na dem marché ànd ak taalibeem bu baax bu Omar ibnu Xataab loolu rek am benn waay ak jabaram ñoo xam ñoom itam ñu ngi ñëw marché nekk ñoom problème bu compliqué la ñëw ku ci nekk yaa ngi tuumaal sa morom jëkkër ji ak jabar ñoo xam ne kii mooy xalaalu machaaki waaw kii mooy kii tekki jafe-jafe yi par excellence ñu dem tawat bañ war a tawate ndaw si kaame jëkkër ji ci yonent bi kii mi ngi nii suma lal ba du ko jege nam ko waxee wax wax wax wax góor gi nag yonent bi waxul dëgg de man sama bopp bi sax du wow bu ko éloquent sangu laa dëkk conflit am na loolu loolu moom du neex xam nga ki ki nga xam ne mënta ñàkk tawat yonent ba egg moom ci lalam lu kooku bu wax ja commencé dana gudd loolu guddoon na sax avant ñëw ci yonent waaye itam ki nga xam ne noonu la fasaaye suma bopp bi du yoon yonent xam ne loolu sirroo ko mu la dox moo ko mën qu'est-ce qu'il a fait mu ne góor gi jegeel mu jege mu ne jabar ji jegeel jege ba seen jëyi laal bi loolu est-ce que provocation buy tax ñu teew la wala mbir maa ko laaj te mbóot la ci biti mun yàlla na yàlla dëppalee leen ñaana leen ñaan bi dëgg est-ce que loola rek la ap mu jeex yoneen ci continuer marché am moom day dem ci marché bi ba gaañu doon xul maa li hada rasul yaakulu taama wa yamshi fi l-aswaq mun ah yoneen day sonn du dem marché bi du lekk bon beneen bés yoneen ci ñëwaat marché donc day dem marché ñi ñi muy jubal ñi ngi marché ñi jaay jaay mu dëgg ñi ngi marché ñi nax nit ñi ñi ngi marché ñi jaay jaay mu mel ni mbokk moon ci tey bañ a seet waaw moom du bay seeni du wax du yàgg dafa tënk rek la seeni yes day dem bu buy jaayee bëccëg bi ñi ñaa ngi bay loolu kay maandu na waaye déedéet ñi am boutique te bàyyi woon bu ñëwee mu tëj pour ñu am chance jaay masala bu ab bu xaw a jafe ji kii muy lebalante mu ne xaaral ma seet xalil booba jabe xam kooku kooku kooku itam jar naa wax yonent dem marché at soxla si séedu ko xëy na moom kenn la ñu ne mi ngi yenn woon ay ay ëdëm ay ay der bu seen yonent rek yenn yenn ba rek teg rek ñëw bu ko fóon tànk yonent bi par satisfaction yonent daal di koy tere mu ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah tey maa ngi la jotee sama ndey ak sama baay amul tey ci kaw suuf ñaar couple boo xam ne bëggante nañ juboo niñ juboo ak suma jëkkër ogoto nag yonent gisuñ ko mu saafara dégguñ ko muy tari ba xaraa deful ay ay kii loolu mbóot da waay ndax mboot mu am résultat muy muy muy encouragé gannaawam yu bëri bu ci duggoon da ngeen di waare alors léegi nag yonent bi boppam ne ashhadu anni rasulullah te ñëw nañ ko mu ne maa ngi seede di di dëggal ne man yàlla ma yóbbu seydna abubakar itam seydna omar itam ne ko wana ashhadu annaka rasulullah eh wallah ñun ñëpp na chadu anna rasulullah eh wallah eh wallah loolu maanaam boo yëfi moo ci réew de wax ci bokkum mu ngi def gannaaw raay comme ngay bàyyi ko dañu sa ci dernier dix huit dix ans plombier la boo xam ne day liggéeyal bàyyi ñëw bés néeg baa ngi xaw a lëndëm noonu mu ne bàyyi ëllëg damay dem hôpital ndax won ko benn tumeur bu nekk ci loxom bi docteur ne dañ koy xotti alors bàyyi mu yërëm ko alors di di di raay tumeur bi noonu alors yëguñ lu mu ko wax boogum nee na ma dem tëri donc tumeur banque mu ne mu xëy di sangu pour dem hôpital loxo ba mel ni dara nekku ci woon mbut la waay su ko newoon soo boo demee nga jàng nangu nangu sax mu nekk seen niveau moo tax dafa bare bare bare bare léegi nag kon ñun waaw da nga gis nag ñu la wax naan waxuma ko nasaratu musaafaxatu ziyaara sëdduri xaaleeg waaye yooyu yëpp nag ndokk yàlla ba nga xam ne xaju fi xaju ci at sax waaye nag lu ci nekk am na teg si wér yoo xam ne ku ko weddi rek war nga ubbee da ngay diine ji nga gis tax foo nekk à l'aise lii nag ñi ngi fi ñi ngi fi lay saay lii la wax sénal même sénal du sénal du six pour que bay jox ko sër loolu naan ko naturel dafay saare bi bàyyi du muridam yàlla may ko ndax yi seen ma yenn yi may la rek yi mun a supporter daf yomb doy na rek benn déclaration kii fii sëriñ lépp ñu wax benn déclaration bu mu ne mës na mooy ndigalal baay lu mooy benn woykat bu ne na kafal mara fadlan an tuadda maaibu nee na doy na ci ngeen rek nit mun a compter ay ay ayibam ci la sa moom benn la mu ne bàyyi def ko ne signal yi amuloo jot sama xaalis nekk ci sa loxo day ci dépensé sa kër ni ni may dépensé sama kër mu ne boobu moom def na musuma lekk dërëm allo nag war nag moom moom nag moo moo moo communiqué lii te li ma leen di xawal ci moom mooy ni ni mu ni mu ni mu jàng yëpp daf koy xamal yokk ci nag calligraphe ku dëkk këram sax daf yow daf la koy war mu ne alhamdulillahi alladi waasala fiina imdaadahu ci lañu wax baraa filistina ci arab booy commencé rek ñu mën cee xamee la tax a jóg mooy tàmbali bu nay baraa filistina filistina daal mooy tudd ci mbir mi imdaadahu wa afdaalahu wa isaadahu afdaalahu yàlla mi nga xam ne moo jokkale tegale bañ a bañ a entrecoupé tegale ci ñun ay tëbbam ak ay mbaaxam ngëneelam ak ak texeelam jëm ñuy texee loolu dafa continuer rek wasalaatu wasalaamu ala sayidi lwujudi wasababi fi kulli mawjud mu def salaatu wasalaam ci yonent bi sangam te itam mooy sabab ci lépp lu am mooy mooy sangam li am te itam moo tax ñu amal lépp lu am loolu am na xadis yoo xam ne war ba kenn war leen fekk facteur yooyu boo bind wa rida ataamu amman sarayaanu sirrihi fi kulli mashhur mu ne ngërmaande lu ma sëkk nag yaa yal na jógee ci ki nga xam ne royaatu mboota mi ci lumoo lumu luy seet na su ko gis nañ ne mboota ma nga royaat ci lumoo lumu gis nañ wa baat fal yaalamil waaqifu ala hada al maktub nee na ku képp ku gis lii ma dugg waaqifu ala waxuñ ne yow da gis sa tànk foofu maanaam ku ci koo xam ne gis nga ko rek lañ ci yóbbu bi anni dafirtu bi sirri luqmati min xadrati cheikhina sirri ayni rahmati maa maa def attestation bi maa ko bind ne ku gis lii ma benn rek na xam ne am naa li ñuy wax sirru luqmati sirru mooy mbóot barke suñu jargon luqmat mooy lu ñuy saqal loolu mooy laqamaxoo alqamaxoo saxal na ko la ci biir nag mooy luqmatu àla wasni fuwaat am naa mbootam luqmatu foo ko jëlee mu ne min xadarati cheikhina mi ngi jógee ci suñu sëriñ Hadratullah même boo demee ci le urdu ak farisi far farisi yooyu baatul xadra ñu ñu faral di wax la mais nag ci ñun jarul bi xadarat mooy proximité ci xudur yi firi teew xadarat nag mu mel ni monsieur mel ni excellence mel ni xadarat moom dafa nawe mi ngi jógee ci suñ sëriñ bi kan la mu ne sirri ayni rahmati sëriñ bi nga xam ne mooy mbootam benn jëm yërmande ji wala bu ko neexee sax mu ba daañu ne sirri ayni rahmati ki nga xam ne mooy mbootam sewle sewle yërmande maanaam su ndoxam yërmande dawee ba nga mën a sangu mën a mën a naan mën a moom mboot moom moom boo ko appliqué ci saaru min mille neuf cent nangam ba ca demet foo dem di nga gis boo xam ne mën na wax ne yàlla baax moom ñu jaarale ci loxo bàyyi nangam ci ñu ko gis ak ñu ko gis sirri ayni rahmati waaw kan la Cheikh El Hadj Ibrahim ibn El Hadj Abdullahi Tijani يوم الأربعاء الثامن يوم الأربعاء بيغا خامني موي الثامن والعشرون موي ñaar fukki fan ak juróom ñett min shahrillahi shaabaan ci weeru maamu koor shaabaan ramadan baraxlu kon baraxlu عام ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين boobu bàyyi dafa jóge Makka teg ca ñaari at imagine te loolu fan la mu ne bi Madina ci Kawlax Kawlax Madina waaye Madina comme dañ ko tuddee Madina waaye boo waxee Medina di ko wax Medina gi la ci biir am na sax bindkat ñoom sawaaf Medinatu Medina ko tuddee la ville de Medina ñu tuddee Medina ci réclame lii mooy seen li li noot ci seen culture dañ bëgg a taarixal ba nga xam kañ la dañ ko bés ba ci weer weer ca at ca barab authentification dafa baax ñu demoon junne at ci gannaaw ku gëstu xam ne su yàlla bi mën naa wax lu xeeroon kaw ci la dëkku te dëkku léeg-léeg sax entre parenthèses mën na junnee ba nga seen ko bu waafaat boo gis nga ci wetu pharmacie madame Sisi ci kaw la ci Médine moom moo ngi dal loolu tuuti fii ndar bu soo demee boo maanaam kër googu moo kër aj aj aje seen wu caab déedéet déedéet ma ma mi ngi ci gannaaw ankay aje seen wu caab murid Jóob moo fi ne ko murid Jóob murid murid la dañu ooyee ko murid mu xam ne car rapide di def transport yor baay kaw la Médina kaw Sénégal si si amul oto utu ko xëy daju ko mi ngi oto booba ni meloon ci moom mi as jëtu rahmallah meloon ci aj ban ba jaanu meloon as aj bitu ngóor la mais cooy xëy xaj yi de moom loo xam ne góor-góorlu mënu ci dara boobu dem ak sonn si bon sa yàlla yóbbu mi ngi bugg a dem ci benn ngénte daf day dem di tudd ay doom ci biir dara wax amul wax ñoo gisoon murit nag aja aja aja moom nag si yàlla yu bëri mun na leen tere aja murit ne ko man kat sama sama essence dafa jeex ma ne ko aja aja moom mënta ñàkk a mënta ñàkk a teere waxtu wa yi tudd te bugg nit ñi xaar foofu dafa si lisi ah murit taal rek ci ndigal si yàlla yu battu ba dem yóbbu ko xaar ko wëre ko indiwaat ko Medina yàlla na ko demal nag fekk seetoo ko rek essence bi du jeex nga xam ne doo toog bañ ko seet mu di liggéey ba mu yàgg mu ne man ma di oto bi mu ne kësal loolu du sirru waaw ki am sirru yooyu la avant sirru loxmat yi déedéet lii après sirru loxmat yi dégg mu ne walhamdulillahi awalan wa axiran wa zahiran wa batin cant yëpp allahu moo ko moom ci njël benn bi dara jiitu ak ci mujj bi dara mucc ak ci fang bi dara muuru ak ci kóor bi dara gënd ko yonent bi firi ñeenti melo yooyu ñeenti tur yooyu yonent bi firi bi yàlla waxee ci saaru sabaxa huwa al awalu wal axiru wal zaahiru wal baatinu yonent moo ko firi moo ko set mu ne al awalu allahumma anta al awalu qablaka shay'un yow yaay ki njëkk boo ko yow njëkk nga yaay ki njëkk yaay njëkk njëkk la dara ne ko mu ne ko wanta zaahiru wanta al axiru fa laysa baadaka shay yaa mujj te sa gannaaw dara ne ko wanta zaahiru te yaay aji feeñ ji وليس فوقك شيء درجة كسكو وأنت ملكت الباطن يا أجي بير جي نبجي وليس دونك شيء تدو دم با بايو nga jeex loola wey fuk la ragal ko ba yonent rabbe ñaan nga xolum ci def yépp ju ànd de yàlla ñu fayal bor wa yàlla yàlla fayal ñu si bor yi yépp ju ànd de la rek اللهم انت الاول الفريق انت الفريق الدين اه ku xeeb ku xeeb yonent nee na jinne mu ne bor xamun bi layli wa zulun bi naha nee na seen déedéet nee na jàqara yooyu fa ne fanaanoo ci guddi loolu ci bëccëg bi itam gàcce bu certain li nga feegu di tam yow da ngay da ngay da ngay seen surtout ñeen dëkk ba tiiw de beegi ji fenn dégg dégg xaada signal yu nag mu ne xaada mbir mi nekk noonu la dañ koy commencé phrase fekk yaa ngi jógee ci benn boo demoon ba bind ba xaw a kii ne ñu ko rek ne xaada rek am nga feneen foo départ mi nga dem alali xaada هذا وقد اجتمع في بيتي أحبابي المحققون الخاصة ولا المحققين مثل لك أم فيه لأن لك لما لن بقى واحد بما يكما سيب موي سوما نيك سوما الصبي دين فدجي من ما تجيب المحققين أعني المحققين ما يفرق ما سيب شفت لول المحققون والأحباب alxaasa ñi nga xam ne ñoom ñi ngi bokk ci xaas ci xaas yi lañ bokk min asxaabi cheikhi ci taalubey bàyyi bal axasul xaas seen biir ku ci nekk sax romb nga xaas xaasi xaas la loolu kat ñu foog ñoo ko créé imam Xasaali dañ koy mu wax xaas xaasul xaasati bay wéy sax aam wa al aam al xaas xaasul xaas العامة الخاصة الخاصة بالخاص تبغوا سيدي أمن أمن أمن نيتي يحنا ربنا يفو يحنا ربنا يفو في مقام بنا كنك يوم ينا حجاب لا شا وشكو مقام بنا حجاب فمن در أمر بنا جنيتي في المثال بكلية إذا بركت وقد اجتمع في بيتي أحبابي من أعني المحققين الخاصة من أصحاب الشيخ بل أخص الخاصة سيدي ومولاي أبو بكر المسنى وباي سلمي باي ما ملا جبلا فام ناري أبو بكر كي مو مك مو دون إمام زاوية ما ملا جبي كي كان مام أجناهم ba mu amaatee benn Aboubacar nag moo tax ñuy wax Aboubacar al musanna bu dee aw sa ñu ne Aboubacar saani al musanna lañ daan wax bu ne musanna ibnu Haarisata ñoom junior bi Abdoulaye Moussa Naar soo doon ko Abdoulaye Moussa Naar parce que man maa tey tey tuddee as de tout doom dafa fulaale ñu gaaw wax El Hadj Abdoulaye mu kontaan ma ne ko rek sëñ bi dafa am lu muy misër yàlla ci yegg loolu daal ma ne ko mu yëngu la bi ma ko tuddee nag ab Abdoulaye mi pour mu nekk Abdoulaye Sani pour mu jël tur ba jël laxab ñu reen a ngëj ibnu cheikh alxaaj abdullah wa qurratu ayni ak ki nga xam daf maa neex sedd suma xol xam nga arab qurratu ayni lu tax ñu koy wax xam nga ñun sedd xol lañu wax moom nga koy firi mais nag qurratu ayni arab dañu wax ne rongo ñi bànneex dafay sedd lépp seeni seen culture la rek rosu ay nii xam nga dañoo xol bu tàng qurratu ay nii kooku mooy kan Seydi Ousmane Njaay Njaay kat ba mu bindee bàyyi lettre arab bu sell ñaan ko soxna Xadi Faati bàyyi dafa ne non suma daan la may waaye yéen daal ku bindaat bu mel nii rek ma may wa xibbi wa safi wuddi al allaamatu ahmad ca ak itam xibbi boo jaay luy xibbi xibbi ci arab mooy maxbuubi wala xabibi xibbi mooy ki maanaam yow mi wax ki nga sox mooy xibbi yonteel muhammad nee na usaamatu ibnu zeydin alxibbu ibnu lxibbi tey rek for naa lettre boo xam ne bàyyi ñas bi tey ci koosi moom mu ko wax ma ne ko déedéet gis naa téere Muhammad bi nekk lettre boobu daf maa réer ca gànn mu ne ma déedéet lettre bi mi ngi ci ma dem seet ko xoba bënd xom maa muy nekkee lettre ba nga xam bi ma commune Nkrumah of Ghana ñaane bàyyi mu détaché ma ci département de l'arabe te comme pour ma ay mu likay ci biir léegi sama xabaar la pour ma nekk chef département te maa dem mu ne ma lii ma lay wax Oulman moo ko war a digle waaye xam naa ne du bañ xam naa jëlal service rek su paak jotee nga dem wax ko liñ la wax bu ne toogal nga toog toog mu nga jox lay rapport bu ko détaillé ñàkk ñàkk ñu ngi ko yàgg dégg fii mais ba ba mu jàngee rapport ba kër yaa ami jàng ne nii bu ko taali yàlla def alaji bilaay ñu mu àndal ñu ëpp nañ si xam fu ñu jógee ñëw misaal ñu ne kon nag xam nga ma bàyyi toon ko dootu nekk mbëg xam nga wax alhamdulilah yooyu itam wax ko xam nga yi riwaaye yi yooyu xam nga jëmu ma badaan mais lii du am la mu ne man ku ma gàddu gàddu sama yéene mooy nga dem ba attan ñeneen ku ma yar dama bëgg dama yéene nga dem ba mën a yar ñeneen ñu ñaar yu mu ne yar nit doo bëgg mu màgg tubaab ba français rek moo koy def mi ngi mel ni chef d'état oola ñaan la nga sa sa gone nga yebal ko mu jox ko poste bi ñëpp ñu ngiej dafa mel ni loolu espèce màgg la daal fekk man boobu maa ngi jàpp ah jógee ci bàyyi dem di pour pour man du yéeg wàcc daal fii dugg parce que bu ma fa def rek dama koy jéem fii rek roote naa fa ok mu ne ma ah que baax mu ne foo musa dem suñu bopp yëkkati ku ne façon bi saxal ci loolu ba sa bopp lu ñu wax loolu yaa ngi koy dégg waaye man damaa ëllëg damaa ñëw fekk ko néeg bi ma ne ko bàyyi di wax dem leer na naa ñi waaye man daal mun na ataf bu mel nii maanaam tournant bu mel nii bëggoon naa wax ju ci am daal mbind topp ci taarix la mu ne jox ma tuuti kon bind moom moo ko baax jël këyitam gi rek taf taf taf taf taf taf ba mu pare rek lu mu ne ma jàngal maa ngi nekk ci ma jàng mu pare rek ñu ikkee ci jox koy man moo jëlee yow sa waa ji karala guñ la dañ laa able rek ne la wallahi laa quatre vingt ma amee ko su may dëkk ma ñun ba ñuy jógee kan nag coup d'état ñu ngi fa jëlee moo tax man maa nga màkk maag suma mag suma xarit Habib Diagne di toppatool gaa gànn yi xujaa yi lu baax ci ñoom ku am suñ gànnaaw fekk foofu maa nga tukki moom itam ah nag léegi keroog suma kii di bëgg des na lekk boobu réer mi waaye nag lekkee jotoon jotoon naa ko lameroon ni photocopie boobu amul ni ñu ko daan defee mooy réer mi réer yooyu defal naa ko kese mbay mbay jox ko desiyaar jox ko jox jox xajo ma rox ñus ko yooyu rek benn ndekk rëcc na ci ma gis ko xam nga ci bàyyi wax ayuhal xibbu ibnul xibbi albaar ibnul baar wax na la wax anta bi ayni rida wa abdulaka daiman kaza alors sa lettre bi lettre bi maanaam sa kii bi dama ko fataxtu fan fataxa surur wan sharaxat xubbi surtout ala baali min ma zakarta li nga wax yëpp dégg naa ko ndax doot saxaafiya bi am kon pour ma kee xool suma xarit la léegi lu am solo la pour Ghana ak pour Afrique léegi nangu naa nga nekk sama mabuus pour musharaka ci lu jëriñ Ghana ak lu jëriñ xam nga ñaanal gërëm naa wax wax wala moom lañ jël nag yooyu ca biir sër maa ngi yem ci sër ba tey ba li nekk ci mouvance boobu bàyyi li bés rek bàyyi oo alaaji Abdoulaye ne ko dégg naa ci rajo ñu ne kurma dafay dem xaw ma xaaral xaw ma fan day jubale ay ay ay ay chef de saa ne ko tukki mi leerul bu mu dem ba dumboon taay dem nga ne ko tukki mi leerul bu mu dem su mënta ñàkk a dem ne ko na fomm ba lii ma ko yónnee mu kii kii kii kii ndeke complot bi même ambassade bi ci Dakar bi ñun daan nañ jox visa fii ci minuit ñu bëggee dem Abdoulaye dem waaj na ko il faut ma contacté Accra xama yu kenn xamut bàyyi na ko demal ci lu dul visa donc c'est urgent ala yëpp lay wàcc ci ngoon ëllëg si muru sura ba mu wax ba pare ndek la ci des nag ñu ngi ko dégg gannaaw kaarisi bi gannaaw lu yàgg ba sëñ Omar Ñang bàyyi yónni ko Conakry moo mu fexe ba gis kur mi de boo kii nag waaja nekkoon ak kon ñu wax ñu taarix ñànke mu ne ko man daal ñëpp ngi bëgg ñu dellu Gànnaar pour continuer suñu liggéey waaye man buñ demoon benn bés rek ba ma defar li ba yàq mu ne ko loo yàq mu ne ko gis nga ba nga fa ñëwee ba Paul Man yónni la ba nga fa jógee maa yàq xelam président maa ko ne si man daal ñuy óoratuma leen parce que xaw ma lan la man daal lii daal jox ma man sax ma jëfandikoo su ma dee sax yow nga mucc parce que dëgg la ci koo xam ne ba kuru la jógee Amérique fukki ati université Lincoln la def jàng fa jàngale fa def fa ñeenti licence def fa diplôme supérieur inscrit fa doctorat mine and thought in African societies après mu mu siiw ca conférence ba amoon Manchester mu ci mu ne dafa ñëw Londres jàng jàng droit pour dem def politique gars yi dégg coow yi koy nawe ñu oo ko la jotoon Senghor ak Lamine Gueye jot leen moo gaay yooyu ñu tàggoo mu sos parti boppam boobu boobu ñu ne sëriñ bu mag wàcc na Accra mun def ko bëgg a gis mi ngi daal kër Ahmad al Fouti bàyyi na unziltu inda Ahmad al Fouti wa falidu rabbi kaana fil ati nekk kii moo am chance mu ne ñang ma daal kër Ahmad Fouti te booba faydu bi ma yàlla sotti mi ngi mel ni yoon la ñuy sotti ci foofu la kur mu ñëw ne nañ ko fay lamp yi ci buntu ba yëpp ko bëgg a gis yàlla dem gis ko ba gàtt loo soxla xam nga ku faydu bi sotteeku yow la ko mu ne ko man daal dama bëgg a to free Gold Coast and to develop biir saal bu laar la dama bëgg a libérer Gold Coast moom bi tudd Côte d'Or développé ko waaye nag fii def ngay jullit boo fi amoon baat nooy def boo fi amee baat boo ko amoon boo fi amee baat nooy def ak ñoom xam na mu wax lu rafet daal ah bàyyi loolu la wax yóbbu moom it bàyyi fi ñu jox ko ñett ñu ko mu dugg ca Maraka ba ba ñu arrêté ko mu jógee ci kaso ga parce que gagné mu dem présidence teg ca ñetti at invité bàyyi officiel ci Sénégal rek moom am na référendum référendum boo xam ne bàyyi yónnee lef wax leen wax leen wuyi ngir nangam wax leen wuyi ngir nangam ba mel ni bàyyi moo def campagne ay dugal dund yooyu di fi tuuti ba pare jël ak gone ñu ne léegi nag waaje te loolu yëpp terewul ñu toog toog am ñu koy tuwal bët yi di ma éduqué yi pour affaire xaalis rek ah bàyyi na ko bul dem leer bul dem leer wata mbóot moo gaa yi ñoo ànd dinañ la wax dara wax la lu tax dañ la wax dara te duñ wax lu tax nag góor gu baaxoon ci kaw rek mbokk suñu kër waaye dafa yónni ne demal ca diw ne ko bu jox la nangam mu fekk kooku di ko sincère yorewu ko yorewu ko mu gàntu ba mu ñëwee ba ndaw so ndaw la wax ko ndaw la wax ko ndaw la ku góor la yaa ko ne yàlla dogal na ko rek dëkk bi gis na ne bu dul loolu il faut danañ ko arrêté kii bi tuuma laa ko arrêté waaye nag yi sonn ci góote yi munul gaay yëpp ay mbóot lañu léegi nag ñu bàyyi laaj bi ne nangam kat nangam kat attention kon nag bismillah mu ne nag ñooñu lu mel ni xaritam bi xibbi ki nga xam ku bari xam-xam la Ahmad Thiam mooy Abdou Ñambe mu ne wa anisi wa samratu qalbi ak itam ki nga xam ne sama wéttal la mooy meññitu suma xol bi Ibrahima Fall Baye Ibrahima Fall mu ne wala Abdul Xaqir al Katib Ali Cissé ak man jàmbu xeebu bii di bind yi lii ñun ñoo fa dajale ñooñu ñu wa xarajna jaalisiina taxta shajaratin waraa bayti ñu génn ci néeg bi garab bu nekkoon ca gannaaw néegam ñu nekk ci ron garab ga ñu nekk ca kër ga fa ida xadimu cheikhi ataan ñu xool rek gis bëkk néegam sëriñ bi ñëwal ne xam naa daf ñu tënd rek bu ko séeréer mu ñëw def na yaa ci la ndax ñoom ñoo ci nekk bi xëy na fekk ñoom ña ngi cee garab ga xam nga mu ne wa qaala lana acheikhu yatlubukum lil gadaay mu leen bàyyi moo leen di oo añ baat boobu dégg naa ko tey xam nga man bàyyi su ma defee ñuy añ di reer di ndékki xanaa man war naa nekk yow tamit mën bi di xaar rek mais wala dafa yónnee nii. leen sax ku foor ñu xam ne moom moo xam dem naa ba tëkk jabar bu ko ne di ba joxeel def loolu ndokk yàlla bi ñu ko jëmbu dafay def mënu ko def góorgóorlu rek dégg de mu ne bàyyi leen di woo añ wa sirna maahu mu ne ñu ànd ak fekk néeg bi ñu ñëw wa atayna cheikha fi maxallihi alxaas ñu ñëwol baay uy siko ñëw ko fekk fam maanaam barab barab barab boo xam ne moom rek moom moo fay nekk wa sallamna alayhi ñu nuyu ko xëy na mooy fi muy añee mais mujj gi moom ci kanam lalam bi mooy fi و و وسلمنا عليه فإذا وجهه يتلألأ تتلألأ منه الأنوار من يكرك فك خرخنام بي ليرن لير لير يي بيغان لير يان سي جون خاينا كين بيغون بيغيسن من الأنوار وفتح رضي الله عنه الإناء من بايلو كيلو كيلو من مؤبين بول bol bi bu bol palaat laam bol bi mag laam rek mu bi bol bi mu bi ndab li fa ida huwa mamluun bi sariid loolu da sa jóge bi siis English mu ne ba mu ko ubbee rek mu ne ndab laa ngi fees ak soos li ñuy wax soos ñun si daara bi parce que sër yi ñu ne yaani yaani ilaama xubzu ta'dimuhu bi laxmin fa daaka amaanatullahi sër yi benn waay ko woon bu yàgg soo bëggee xam luy sër yi mu ne mburu muñ jaxaseeg yàpp wuñ togg loolu mooy sër yi ñoom soos la ñu ودايرك وهشمنا الاخباز وشرعنا معه في الاكل سيدنا لينا يبدا يدال لي فوتو مبرويا كوماسي دي لك نوك باي كي ميغلاي ديتايل وفي اثناء الاكل قال لنا تبير نيغي اñ pareguñ mu ne ñu taxol tuuti gis nga lii table moderne souhaité maanaam une table gay ñu ci indi ay xalaat yu xóot ki ay waxtaan rek bu kii wala soltex ñun la table daal nga ji sow doon maami maa dafa tombeek dogal ba daal bu Dakar lañ sujur warom bu su koy léegi ma ma ma man man daal man daal dama amul appétit moom café moom itam bàyyi bàyyi ko di bo boo amee abidi bu bu bu jaaree ko di boo am abidi da ngay dee bu dee ñu bàyyi reyu ko xam nga yàlla bu ko wanee li naa yow moo kenn mënu ci doo nal nañ lay wax rek moo gën mu ne mu mu mu qal lana hal aataytukum sirra luqmati mu laaj leen ndax jox naa leen sirru luqmati yéen ñii te Ousmane Ndiaye Aliou Cissé Baye Mbaye Baye Mouride Thiam Baye Ba Fall est-ce que jox naa leen sirru luqmati faqul naa laa ñu ne ko déedéet dañu ko de fa axada luqmatan summa alqamaha sayida Ababakar Mbaye daal di jël ab tib wala ab doom daal di koy sexal Baye Mbaye mi ma waxoon sànq. wa uxra li Seydi Ousmane Ndiaye jël beneen tib wala beneen doog saxal ko sëñ Ousmane Ndiaye wa uxra ak beneen tib mu saxal ko Ahmad Thiam wa uxra ak beneen tib lil Abdil Xaqir mu saxal ko jàmbu xeebu bi al Katib Ali Cissé ki nga xam ne mooy mooy mooy bind lii Ali Cissé wa uxra li Seydi Ibrahim Fall beneen tib itam mu sexal ko sayid rafaar summa qaala haada sirrun min asraari tariqatina mooy leen lii ma leen defal mi ngi bokk ci mbóoti suñu tariqa naqulu man alqamtuhu luqmatan daxala aljanna mun dañuy wax ku yegg foofu na nga naan ku may ku ma sexal ab tib rek nga demal na xam nga aljanna yonent yàlla moo nee na nee na lan yadxula aljannata ahadun bi amalihi qaalu wala anta ya rasulallah qaala wala ana illa an yataxammadani llahu bi rahmatihi kenn du ci dugg aljanna pour sa ngóor ñu ne ko yow sax mu ne man sax xanaa yàlla sotti ma yërmaanem rek bu yaa ngi sotti yërmaane bi sooy بلقمة أو بشربة أو بنظرة أو بدعوة ما لك أنت ما يخدنا هذا سر من أسرار طريقتنا نقول من ألقمته لقمة دخل جنة ولما خرجنا صرت أستشكل هل هو أذن لنا في سر أم لا يعني بينك bañ génnee foofu ñu doon añee ba mu defal ñu ñun ndeke ndeke ndeke initié nañ ñu ñëpp maanaam mën la mu xaw a leerul ci man ndax lii dafa ànd ak digal nañu ko ñu jëm xam nga bu dotoon ku ñu yar yar boobu du xalaat xalaat boobu aywa ndax digal nañu ci siri ci mbóot mi am la fa qaala lii sayidi Ousmane wajaba alayka an tasala mën na ko comme loolu nga xalaat booba nga war a def rek laaj ko ani cheikh demal wa baada salaati al asri ataytuhu radiyallahu anhu wajadtuhu fawqa satxi almasjidi jalisan ala kursiyihi mustaqbila alqiblati mu ne bu ñu julee takkusaan pare ma nga ca kaw jumaa ji ma fekk ko fa ma nga ma nga toog ca ca piyaanam ba jublu xibla mu ne fa danawtu minhu mu ne ma jege ko su ma danawtu gën koo jege dafa ragal waay ma gis na masafa bi tax moo mun a wax ak moom ndànk waaye te bu toog ci boobu dafa kii bi daal di avancé su ma danawtu minhu fa qultu lahu kunna nastashkilu hal adinta lana fi sirri am laa ma ne ko dañ doon jaaxle ndax mboot mi ñu appliqué ndax digal nga ñu ko ñu itam loolu mooy ndigal li fa qaala naam adintu lakum fii waristumuhu lii ne ko waaw digal jox naa leen ci ndigal te itam donn ngeen ko ci man donn na leen naa leen mu ne fa xamidullah kathiran wa nashkuruhu walhamdulillahi rabbil alamina mu ne nag booba nag sant yàlla lool di ko gërëm di wax alhamdulillahi rabbil alamin xam nga alors déjà lii waxam ji la itam xam nga lii benn bés benn añ te saaku saam ji tout ça nekk ñaata bés ñaata weer ñaata at la côtoyé baay boobu ñoo ñëpp ñeneen ñu bokkum ci ñi mu jóg mais avant boobu ndax siro gars yi di ko wax bu ma ko téye mooy nag léegi nag dama dégg ko daan di jàng lasraar wala jàng ilmu lasraar ci diw loolu bokk te diw ilmu lasraar am na qawaid ci téere yi am na yoo xam ne am na may bind ko léeg-léeg nga gis ko muy lu ñuy xisaab léeg gis ko muy lu ñuy xaatim léeg gis ko muy lu ñuy am ay melo la ñu koy baat yu gudd yoo xam ne bokk teg ngam yoon ci arab léeg-léeg muy ay tur yu sikar ñu xam léeg-léeg nga dugg tur yoo xam ne xamoo lu mu firi mamaar yi nga daw ko xamoo xamoo bokkaale lam bi làkk boo xamul lu ca ngël mën naa muy lu baax lu ñu wax ci làkk ba day mamaar yi mën naa muy yëfa bi bàkk xërëm dafay bëri waaye nag yëpp bokk sa lii la yow grâce la yonent yàlla Muhammad nee na tuuba li man raani wa li man raa man raani di ko teg ba muy ay génération aljanna ak texe ñaan la ku ma gis aku aku gis kooka aku gis kooka buy dem moo indi li bàyyi di sant yàlla ne wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannati xulbi bila muxtaadi foofu la ñu bëri di nekk li yem te rexla bi yemul foofu daf ko authentifié is annani xalifatu tijani yemulu ko foofu daf ne mawhibatan min ahmad al adil kooku silu bu yow nga gis mais ñu gis la day gisan gëw te bàyyi waxul waman ahabani comme ni waa jooju wax ci téeréem ba mu ñu doon ay doy ba gis ko pare as africain mën bàyyi itam mu ne ki ñu wax Ibrahima Kawlax yi wax na ne moom mën a xam ba ne waa yi ki jëlee ci kër bi laa butaani xam naa xam naa bëgg a siiw siiw siiw ñun bàyyi ñu ko ñu koy man pare laa ko jëndee bokk ci ci barbe alors léegi ru'yatu boobu yonent ko njëkk wax bàyyi tarixa bi daf cee am ni siru loxmati amee noonu la siru ruyati amee waaye na ruyati bi ñëpp bokk mooy kuy woote dëgg soo ko gisee waxoon nga gis ko gis gi abu jaalin gisu leen daal mu yetiimu abi taalib ibnu abi kabshat dara la ko dul doon naka noonu waaye nag authentifié ko ne li annani xalifatu tijaan ndaxte maa ngi amee siru ku ma gis gis googa ndax man dama dama ko donne ci cheikh matiyaani comme lim ne ñi doon ngeen ko ci man maa ci wuut cheikh matiyaani te loolu itam mawhibatan min ahmad al adnaani maa mu ko tëdd mu teg ci nag preuve boo xam ne rek léegi moo gën a moo gën a garaaw épreuve par la waaw daf ne daf ne man shakka fi da fa ara wa asmau min xaysu la yara lii ma wax nii ci ruuyatu ak mahabbatu ku ko sikk na ko wóor ne dinaay gis loo xam ne askan bi ko gis dinaay dégg loo xam ne askan bi ko gis kon wóor na misaalam dégg xam xam naa bu jeex bu xaay waaye bii moom bàyyi nga nekk ci ko nekk daara naa alaaji lay nekk ci daara jàng ba sonn dégg mboppat xam nga xam ne mboppat yi des xam lamb yi lamb yi kii bi rek quartier te amul dóor amul xaalis ñaari ci loolu lay nekk te ñu bàyyi nañ ba pare mu ne te mu dem seetaan bi ci boppam ñëw dellu si waat na ko dimanche dimanche dimanche ba tolloon Dakar gi ne ko foofu ci wetu marché bi di ñëw nee na ma xaraam ba dégg bàyyi baat bu sec ee alaaji dëppal alaaji bi dina jaawale baat baat ñu ne tos jabet nag wees moom xam nga yaraa bi gën a dem nañu bi ñu ànd def na seen yoon bi dem coow jërëjëf jërëjëf bi mu bi muy dox ci affaire affaire force supérieure des chefs religieux ci ngat bi ñu ziyaare simbab ñuy génn mën na nañ ko oo juróom jàng ak kenn jàngul ji alxuraan ji muy dégg moom rek moo koy dégg te ci bàmmeel bi loolu dégg voilà yaa ñaa ngoog nag suru luqmati nag boo demee bam ci rek nga ñëw ci sàmm jaay ñëw ci ne ma bu doon suru luqmati du temps nga am suru luqmati bu ci am yàlla rek loo ñaan mu nagu te tegu ci yoon wii damaa woon jàmm rek ay xew jàmm rek ay xew السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب بسم الله يا سيدي waaw waaw waaw waaw waaw mën naa ci des rapidement ñaari gént rek la xëy na bu amee yeneen ñaari gént rek moom moo daan laaj baay bu yàgg léeg-léeg bàyyi itam moom gannaaw du bàyyi nekkee bàyyi ci cause dafa daan wax soo bàyyi ay gént bii daf ne ma dama gis dama gis lettre bu mu bind moom baay di ko wax naan maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma seedeloo woon fenkal jant bi njëkk xarak fajar temps boobu dama daan ñëw al alxames ak ajuma mu di ma woon kan kiyam yeeg ak lekk yooyu boo dina expliqué waaw lu ne am na asbaabu nuzul ma ne ko waaw waaye bi moom nu mu demee jant xajar fajar lay xar bari set dañu ci am jant door a feeñ mu ne waa maa ngi ciy jikko ab léeb la mu ne ma daf maa waxoon loo xam ne ci laa xamee woon ne fay naa ngi yow ma dugg si te itam danaa ci am xëy na cër ne ko loolu damay mu ne ma benn bi gént la koo xam ne mu ne mu ne ma mu ne ma dama dama gént kàddu gu leer ne ma Mahmoud xoolal asmaan su njëkk saa ngi xotti na yow mu ne ma xëy rek xam nga moom ay sëriñ ko nekk foofu la sax mu ne ma laaj ko kenn mun maa loolu xam dama dul détail mu ne ma laaj keneen mu mu mel daal wax ji dafa xaw a kii ma liaar ba baax ma ne ko daal ma ne man ma ne ci sama xel xëy na dee lay junj maanaam wax ji firikatu ñaareel bi xëy na dee lay junj waaye dee moom bëgguma ko waaye nag ragalu loolu itam dara la mun nag bi may wàññeeku ma romb Ibra waaye moom ba ma ko nekk yomb sëriñ bi mu taxaw ci buntu xam nga zaawiya bi sàkket yi ko mooroon am na buntu fii bu jëm ci kër Baay Raji Bàkkaar ndax mooy imaam bi ak buntu bu génne ne la ci mbedd mel mu ne ma romb amoon na ak neew foofu loolu ñu ñëpp fekk mu ne morom ko ni ko mun mu laaj ko jóge ma nettali ko mu ne ma nettali ko génti comme simplement mu ne gaa de Mahmoud asmaan du xatteeku moom lu ma yowatu baddalul am xayral ardi wa samaa mu dafa fii fa mu dafa lëndëm mu ne ko asmaan du xatteeku lu may la yàlla wax ne bis ba dañuy soppi suuf dootu nekk suuf asamaan dootu nekk waaye mën naa am sa géwénti gi mën naa am sa géwénti gi daf lay dëggal ne lu mu yàgg yàgg xijaab bi dox sa diggante xam sa borom dana xotteeku ni nga gis asamaan si xotte dafa nga nekk ni ay yoon yoo xam ne dina ko comme jaaroon nga mu ne yàggut bu mooy mooy bu jëkk mu ne yàggul mu gëwentaat kàddu naan ko Mahmoud sa ñaari waxande yëpp sàcc nañu ñu def sa yére yi mu ne ci gëwén dig mu gis amul yéen mais bi yoon nag mu dem directement gis baay mu ne ba mu ko waxee moom fii mu kii bañ na ko waaw mooy jii mu day fay fedd li gëwén bu njëkk ja rek da nga mas a dem ba sa diggante ak sa borom da nga ci toll ci tolluwaay boo xam ne di nga fàtte àddina alaxira mooy sa ñaari wéy si ko xam ne xam ne nit dina toll foo xam ne passé bi ko bu baax loolu lay wax nag moo tax nag bés mu ne mane ko dërs bi ñu doon déglu sànq ci ifaadal ahmad yi xomb ko doon jàng mën na ma ko nekk ñu wax ne taati faydatun ala asxaabi moo moo indi woon nekk ñuy fayda loolu ma leen nasi nañuy jant bi fenkoon na ak fajar wàcce ko amul laaj ah mbaa benn boobu boole waaw la demi waaw dafa ba mu tàngal ko waaw waaw waaw hmm hmm hmm de xam nga foofu bàyyi mi ngi ci doon jublu bi ñu waxee ne wa këriha maalikun waaye nag foog ñu wax ci këriha ndaxte këriha boobu bokkul sax ci karaatu bi ci juróomi at yi karaatu ba mooy rek moom taamu koo def gënalu ko ne nag aayu ko mu ne Shaafi'i yu masalan wax na ne yakrahul mushammas mushammas mooy ndox mi du sax satala satala am na protection ne ndox muy ubbi nii jant bi tàngal ko certainement intempérie yi ci romb boobu la wax comme Shaafi'i nee na moom moom dafa sib imaama nekk ilimaan ndaxte pal la te moom pal yëpp la la sib maanaam du sib ak xaraamal gënalu ko waaw noonu mooy mooy mooy suñu ko ne ilimaan munul ñàkk kon nag ku ne xam ne ne du lu ñuy aaye waaw xam am na yoo xam ne duñ lekk lekk sàngam gënalu leen am yoo xam ne jo dëkk bi réew mi rek yi seen képp bar nii sax te ku ko sal boobu gis sujjóot dina sax ba xere waaye loolu rek la déet bi mbokk leer na bokkul sax ci siyaar xam nga dafa am juróomi axkaam yoo xam ne sib ci la bokk du sib boobu mel ni ku ne la kuy laaj toog ne la je préfère ne pas y toucher moom kooku affaire bokk moo tax nag mënuñoo wax xabdu lu wéree ni moom ñu naan Malik sib na ko ban façon sib loolu la ci bàyyi dugg ndax moo ko wax boo ko waxee ban sib na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها والفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر صلاة تفتح نبي وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله mun naa am ñu am fi as mbër parce que ñi ngi ñi ngi waaj a bër bër tuuti laa as mbër waaw parce que yéen naa gis invitation mbokk yi daal ci ci Italie cette fois ci pour trois à quatre semaines ñu ngi si ba gën a ko ak ñu seet ñu si des itam kay ñu koy def ñoom ñaanal ñu ñu dafa jàmm ñu dafa jàmm fekk fekk leen ci jàmm ci jeexal suñu jàmm jeudi matin kon ëllëg ëllëg ci guddi la arrah اللهم صل على سيدنا كان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين يا رب
برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نام